jërëgéen jëf mbokk yi ba léegi ñu ngi fii ci Hisnul Abrar ci tool yi Serigne Bassirou Mbacké moom Serigne Abdoul Khadir yi nga xam ne mi ngi nekkee fii ci biir Jolof euh, liggéey bi di wéy xam naa nag euh, dafa laaj tamit ñu leeral ñi nga xam ne ñoom ñoo ñuy seetaan ñu xam bu baax a baax suuf si fan la jaar ba agsi ci Serigne Bassirou Mbacké moom Serigne Abdoul Khadir ak tool bi ni nga xam ne noonu la yaatoo ak liggéey bi nga xam ne moom lañ fi def ñu ci euh, dalal Serigne Fallou Galassila ñu ngi leen nuyu la ziar Euh, ñu bala nga nuyoo rek nga enchaîné waale ak euh, suñu question mu jëm ci suuf si fan la jaar ba tàbbi ci loxoy Serigne Bassirou Mbacké ba Serigne Abdou Khadre jërëjëf sëñ Fallou maa ngi lay nuyu di la ziar di nuyu euh, sëñ Fallou mi nga jàkkaar lool seen fa mbokk Fallou Gala si lañ ko wax ak yéen mel ne kon ñetti Fallou ñoo jàkkaarloo bii laaj Fallou la bii tontu Fallou la bii cam bii filmé Fallou la loolu bokk na ci xarbaaxi tool bi waaw liggéey bi mën naa wax ne tool yi sëñ Bass 2011 2012 jëpp 2013 la ko tàmbali woon di toppatoo yebal fi benn doomu nijaayam bu ñuy wax sëñ alaaji Fallou Bousso moom sëñ Abdou Karim moom moo doxoon diggam ak suuf si mu di ko lijanti comme ni ñu baaxoo di lijjantee suuf dem ca communauté rurale ba def ab demande bind ko jox leen ko mu def ab demande bind ko jox leen ko ñoom ñu dem xool ba xam danañ la war a mën a may wala duñ la war a may laaj la li nga fi bëgg a def lu mu doon lan nga fiy def ba nga wax leen ko lu leer nañ ñu ñu ànd ak conseil dem daje nga yónnee leen jox la nga war a jox conseiller conseiller daje wote ko ba ne may nañ la suuf buñ la xasee may suuf it daa desaat yeneen beneen lijjanti mooy def délimitation limitation ñoom conseillers ñooy ànd ak commune bi def ko bañ defee délimitation ba noppi nag mu des ay bornage ñaari façon bornage am na loolu lépp ab lijjanti lay doon boo xam ne danga koy jaar ci fi ko war a jaar eaux forêt am na ci wàll mairie bi am na ci wàll euh, préfet am na ci wàll gouverneur am na ci wàll loolu danga koy topp ba ba ngay dem Louga ca gouverneur ba bañ defal la ay kayit yu leer nañ ñi nga am droit nag soog a mën a ñëw ne dañaa jël sama suuf soo ñëwee ba war a jël suuf si day defaat beneen lijjanti lijjanti bi mooy da ngay ànd ak eaux forêt yi ñu wër tool bépp xam garab yu mag yi ci nekk ñaata la ñoo la bala nga koo dagg da nga koy fay ndax kenn dagg garab ci àll bi looloo tax nga ñuy jàpp eh, ñi nga xam ne ñooy dagg garab yi buñ ko wañ wëree tool bi xam ñaata garab la Cheikh Bass dafa génne waat xaalis ñu dem fay garab yooyu daanaka à peu près devis bi ci nekkoon maroon naa jege 4 millions nangam kon mu fay garab yi boo ko fayee ba noppi nag lañ ne la may nañ la suuf si wutal nañ ko këyit fay nga garab yi am nga ci walaabal na ci yow léegi li ci des mooy nga nga fay ànd ak waa EOFOR ñu defal la borne wañ leen la may bi mu ànd ak waa EOFOR ñi liñ ko may 12 kilomètres carré la wet gu nekk 3 kilomètres la suuf si ci boppam dangay ngay jóge Touba ñëw saajo ñëw gasaan jóge gasaan jëm si Thiel boo ñëwee ba tolloog buntu parfo bi buntu bu njëkk bi moom ngay topp rance de doli bi boo àndee ak moom ba ci buntu bu mujj ba ci wetu gànnaar gi ba féete penku digganteem ak tool yi 1 kilomètre lay doon foofu la tool yi tàmbalee sës rek ci euh, ci range bi bàyyi Thiel ci euh, euh, Saalum gànnaaram mu nekk foofu nag suuf si itam bi Cheikh bas jotee da koo daal di nag woote nga xam ne kon lijjanti bi mën na fukki at ak nangam bi mu jotee ne soo sa ko am ndigalul ko koo gor la ko mu santaane ko ñu ñëw fi alterné talaata àllarba alxames tey di ajjuma ci la Cheikh Mouhamadul Basir ñëw seet si mbooloo mi gajj nañ fi un kilomètre cinq cent un kilomètre cinq cent wet gu nekk lay doon am na ci sax côté boo xam ne far na jàll 6 kilomètres yëpp ko koo gajji ndax mbooloo mi ñàkkoon xam dëgg-dëgg li ñu war a def biñ gajjee lépp nag ba àggal mu des fi ñu war ko taal dindi nañ ëkk yi dindi nañ yenn garab yu mag yi ndax suuf boo koy liggéey boo dindee ëkk yaag garab yi yëpp du ngelaw li duutu am lu ko téye loolu day gaaw a sàppil suuf moo tax ñu bàyyi fi yenn garab yi ak yenn xur yi ndax mu mën di téye ngelaw li ak suuf si waaye noppi na ba nga xamante ni daal ku fi bu tawoon bu ñu fi indee matériel mën fee liggéey loolu nag euh, moo ñu fi andi woon daara ji mi ngi tudd xisnul abraar sëriñ Mouhamadul Muntaxa moo ko ko tuddee tudde ko xisnul abraar Thiel lii daal mooy liggéey bi yàlla dogal na liggéey nañ ko ci juróomi fan lépp noppi na ñoo ngi xaar sëriñ bi ngir bu mën a ñëwee wax ak mbooloo mi jërëjëf euh, sëriñ Fallou Gallassi la ci leeral yu am solo yoo nga xam ne moom la def fii ci tool yi Hisnul Abraar yu ba siiru Mbacke moom Serigne Abdoul Khadir dégg ngeen euh, fi nga xam ne fa la tool yi jaar ba tàbbi ci euh, loxo yi Serigne bi kon liggéey bi mat na taalibe yi defee nañ ko ni nga xam ne noonu la ko bi bëggee ci diirub juróomi fan yi ndax liggéey bi ñu ngi ko tàmbalee le 7 di altine euh, le 7 mars 2022. tey jii ci aljuma ji euh, liggéey bi euh, mat ñuy xaar Cheikh Mahamadul Bachir moom euh, Serigne Abdoul Khadir Mbacke ñu koy ñaanalaat mu yàgg fi loolu te ànd ak wér ci biir tool yi ngir mu mën a waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di taalibe yi ginnaaw bu nemmee ko liggéey ba noppi fas yéene yëkkati ay kàddu ngir yeewi leen ci liggéey bu am solo bi nga xam ne def nañ ko fii ci Hisnul Abrar kon mbokk yi neskis incha allah dangeen am kàddu yi Serigne Bassirou Mbacke moom Serigne Abdoul Khadir fii ci Hisnul Abrar ci tool yi nga xam ne mi ngi nekkee fii ci Jolof